صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق الحمد لله ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ay xeewalam ak ay mayam te fegal ñu boole musiba balaa yi wëndeelu yëpp xamaa ak yi ñu xamut di julli ci yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam yëpp ñaan yàlla mu sotti ay ngërëmam ci pay Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane sotti ko itam ci pay Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu wax ji nag lu gàtt la li ko tax a rek mooy waxtaan ak taalibe yi ak soppe yi leen ne ziyaara bi nga xam ne moom lañ baaxoon di ko defal Mawlana Cheikh Ibrahim Niass at mu nekk wala ziyaare ndax ñaar la heure bi jot waxtu jot na bi ñuy njëkk a wax mooy ziyaara dugub bi moom ñu ngi ko jàpp ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi ñu nekk nii ñu ñaan mboolem muqaddam yi ak kilifa yi fu ñu mën a nekk ci biir Sénégal ñu waajal ko ci xol ak jëf te feddali ko taalibe yi feddali ko itam soppe yi ba ñu jóg ci taxaw ci taxawaay bi nga xam ne moo war dañ góorgóorlu bu baax nag ci ñaari ziyaara yëpp man dama ne ñaari ziyaara yëpp ziyaaratu shukri laa leen tuddee ziyaaratu shukri mas na fi am ci jamono baay bu yàgg ci jamono ñoom Alaaji Lamin ak Baay Alaaji mu Abdu génn nañ ci jamono joo xam ne ci xat-xat lañ nekkoon ñëpp ci xat-xat lañ nekkoon ci xol ak jëmm ak xel yàlla nag mu ngi wane ñëweteem ci ñun ak yërëmam yërmandeem ba mel na ni xat-xat yooyu yëpp dana jàll ci jàmm kon nag dañuy sant yàlla ndax yàlla dolli moo tax ziyaar yi yëpp ziyaaratu shukri la tudd ren kuy sant yàlla daal na nga ko wane ci ziyaara dugub bii ak ci ziyaara bu mag bii man dama ne du ma wax ziyaara xaalis ndax lu dafa tuuti waaye ziyaara bu mag bi laay wax dana dugal xaalis dugal leneen lu may xaalis ñaar yëpp nag jàpp nañ leen bii di bu dugub bi moom la njëkk a jàpp ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi ñu nekk bii mag bi jàpp nañ ko ci fukki fan ak juróom ci weeru décembre bii di ñëw ñëpp nag nañ ko waajal def ci lu ëpp liñ daan def li ñuy wax rek mooy nit ki boo emee fa nga emoon daaw da nga danga da nga itam ku jëm ca kanam da ngay wane ne jëm nga ca kanam ku dolleeku da ngay wane ne dolleeku nga bàyyi mu ne taxaw benn bërëb amut mu ne li am mooy jëm ci kanam waaye del wala del wala dellu gannaaw boo yéegee ne demoo ci kanam rek xamal ne yaa ngi dellu gannaaw dem taxaw benn place mu ne amut kon nag nañ góorgóorlu te mu ne donc nit ñuy ñëw taalibe yi nañ xam ne seen soxla yi moo tax ñu ziyaara si kon nag nit man naa ziyaara si ngir aajo mi ngir njabootam ngir boppam ngir digganteem ak borom moom waaw yooyu yëpp muy la mosu ci ziyaara su fekkee ne mbëggeel jëmula roxam mooy ziyaara képp koo xam na daal li ngay oote ci Baye dëgg la na nga ko wane ci ziyaara yii ndax Baye moo ma doy Baye mooy suma sëriñ Baye du nit Baye amut kem yooyu yëpp baax na waaye li ko gën mooy wane ko ci jëf jëf rek moo koy dëggal ñu xam ne li ngay wax dëgg la nit ñi nag wax dëgg yàlla góor lañ lool góor góorlu lañ ci ziyaara yi béy waaye dañ leen di ñaanal yàlla ñu gën a góor góorlu ci yii di ñëw ndax mu nekk ndollal loo xam ne pour taalibe Baye pour soppee Baye dara du ko mën a wàññi dara du ko mën a taxawal te képp koo xam ne ci moom nga aju bu ñu ootee ci moom dara war ngaa def li nga mën ak li nga mënut ndax am na kaaraange yoo xam ne am na moom moo ko def door dem ndax moom moo wax ne aar na boppam ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak ci cofeelam cofeelam ci yonent bi sallallahu aar na itam mu ne bépp nit boo xam ne yaa ngi ñëw fii ci moom Medina walla nga jógee Medina di dem mu wax ko ci benn bayt ne xasantu bihi nafsi wa ahla mawaddati wa kulla fatan yaati lana aw yumashi waaw kon nag kii def loolu dem luñ koy defar rek ku ci nekk rek waroon na ko sa man la ci waaw lu gàtt la mooy lu gàtt la mooy loolu yàlla ñu yàlla dimbale bu laa laajaatee ñu waxaat gannaaw ziara dugub bi danañ waxaat fu nit ñi tollu ziara dugub ci la ñuy xamee bi ci des nañ cey def ziyaara bi nag naka jekk dañuy wax ne bàyyi la ñuy ziyaara waaye waxtu wu nekk am na jëmm ju fi nekk yoo xam ne moom lañuy ñuy xoolee bàyyi moom fi mu nekk nii xalifa bi fi nekk ñu koy xoolee bàyyi moom moom mag ci këram ci njabootam lépp mooy Cheikh Mouhamadou Mahi ibrahim Niass mooy xalifa bi fi nekk moo la ñuy jëmmal ci place baay boobu moo tax na ñëpp góorgóorlu wane ne lii yàlla xeesal nii ñun itam danañ xeesal suñu bëggeel danañ xeesal suñuy jëf yàlla nag moom moom yëfe mi nu ku neex la koy doxalee waaw loolu loolu loolu la def te lim lu mu def rek baax na moom yàlla lu mu def rek ñun toujours suñ tey mooy gën suñ démb suñ suba itam mooy gën suñ gannaaw suñ gannaaw suba koy gën yàlla loolu def nañ ko topp bu baax a baax a baax waxtaan nañ ci ak moom kontaan na ci d'accord na ci ñaanal na leen yàlla kon nag li des rek mooy ñoo ne ko ci jëf salaamaaleykum